mbokk téléspectateur Equivox TV ñu ngi leen di euh, jaajëfal comme ngeen ko gisandoo nag ñu ngi fii buntu kër euh, Ousmane Sonko lu tax nag euh, ñu teew fii rek mooy ñi nga xam ne ñoo di partisan Ousmane Sonko yi fi nekk nii rek ñu ngi taxaw di xaar ñi nga xam ne ñoo di section de recherche ndax dinañ ñëw wala duñ ñëw ñoom daal pare nañ taxaw teem rek xeex bi lee xeex ngir rek jàppale ki nga xam ne rek mooy seeni président Ousmane Sonko lépp nag loo xam ne rek duppee na fi comme information rek di jot léegi léegi bu ko defee rek Gomis topp ma ñu daal di rek laaj lan moo waral seen teewaay fii. voilà Gomis euh, li gars yi wax rek nag euh, mooy euh, kee nekk ca kaw rek ay bal réel lay door actuellement du ñun ñoo ko wax nag ñi nga xam ne rek ñoom ñoo fi taxaw di partisans yi ñoom ñoo ko xam ne mën na jële Sénégal ci guute gi nga xamante ni moom lañ ko dugal te ñi ko si dugal tey wëlbati ku xam ne combat bii muy muy mu mu nekk sénégalais yëpp jox nañ ko ci bopp sénégalais yëpp jox nañ ko si nopp sénégalais yëpp fas yéene nañu ànd ak moom xeex jusqu'au bout ndax ñu jële fi lii nga xamante ni moom moo fi nekk ñu gis ni nag arrangé wu leen pexe bu ne nag lal nañ ko pexe bu ne nag lal nañ ko waaye nag dañ fa yàlla lay defaree yàq mënu faa yegg heure bu incha allahu taala bii nii fa mu daan jaar rek lay jaan parce que got pire kenn du ko taxal muy naax saay got pire kenn du ko tuumaal yenn yi cette fois ci nag il faut qu'ils sachent qu'ils ont le sommet fi ñu yegg dafa sori te duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg bi ñuy ñëw dañoo dénkaane suñuy bopp xam ne dañu pare c'est pas ñu tuddee suñu bopp les linguères de Pastef talaatay ndeer tey jii la ñuy wane ni nag war nañ koo mën a dekkalaat tey Sénégal dinañ ko delloowaat ca fa mu nekkoon buumu jaam bi ñu makk bëgg takk dañu diri fu mu ñu neex fu mu ko neexee dina ko tekki wala moom mooy jóg abal ñu parce que nag dañ koo dénk rek ni ko yoral ñu ci ni ñu neexee noonu la ñu war a yorale mënu ko il n'a qu'à foutre le camp may ñu ñu su suñu réew ñun ñoo ko moom te ñoo koy defaral suñu bopp kenn du ko defaral may lancé appel nag suñu moroomu jigéen ñi ñi leen dëkk bi bu mettee ñu ñoo koy njëkk a yegg waaye nag nañu bàyyi ñun jigéen ñi ñu ñuy utiliser nañu bàyyi ñun jigéen ñi ñuy servir de nous pour di ay nit dañu bu dee bu baaxee jigéen na ko baaxal bu yàqoo it jigéen moo ko yàq nag ñu ngi ñaan suñu mbokku jigéen ñi nañu ànd ak seen xel nañu ànd ak suñu xel lu defar ñun ñoo ko war a defar ñun ñoo war a takk suñu sër liggéey suñu réew mu jëm si kanam ngir suñu njaboot yi nu jur bu ëllëgee ñu fekk fii un Sénégal meilleur mën a épanouir suñu demee bàyyi leen suñu xel mën a dal ñu ngi masawu aussi la responsable propriétaire du salon bi nga xamante ni moom it jaay nañ jaay nañ ko doole bu baax a baax teg injustice ci kawam ngir bëgg rek fexe ba seen coup bi jàll waaye bu soobee yàlla nañ xam ne yàlla moo leen ëpp doole te incha allahu taala lépp luñ si bañul bañuñu kas Macky dafa ne troisième mandat lay yootu wallahi azim bu teggiwu tànkam 2024 du ko yeggali te lii ñun ñoo ko ko wax lii ñun ñoo ko wax Sonko kenn du ko laal Sonko kenn du ko laal vive la justice kon kenn mënul saltel deram ñun sept ngi ànd ak moom sept depuis 2014 may ànd ak moom fu ne fu ne dem dem nañ fa fanaan nañu àll fanaan nañ ci hôtel barki salaatul faatiya musuma gis yaram Ousmane ko te dinañu yeewu suba teel buy tangu piscine sax dafay sol tubayam dafay sol yéreem kon kenn mënu ko taqal ci sunuy bët et le Sénégal compte sur lui mais man loolu buñ ko tegee de côté jigéen di ñu jël bëgg boo jaay doole parce que nag am nañu am valeur ci réew mi cette femme là c'est une femme de valeur en tout cas ci jikko wane na ni jigéen dafa war a bañ jigéen warul nangu ñu koy matérialiser cette femme là a montré que jigéen du objet te jigéen mooy nampal dafa soxla doomam ñu jël ponkalum nit teg ko mu parce que bëgguñu mu wax ak kenn li mu wax ba pare dem na organes yi mu jaar c'est des organes de presse sérieux wax bi takk na ba pare kon kenn mënu ko delloo ginnaaw léegi nag dama bëgg les associations féminines les associations de la société civile na ngeen jël combat bii ngeen xeex ko seen pétition yi ngeen di def pour que justice par rapport aux couches vulnérables mën a nekk am ngeen nag benn bu bees l'État a kidnappé une femme qui doit couver son enfant ndax lan pour éliminer un adversaire politique loolu ñaaw na ñaawlu nañ ko boo weesoo jigéenu Pastef jigéenu Sénégal yëpp et toutes les femmes du monde te xeex bi dinañ ko yóbbu jusqu'à l'international il est temps que ça cesse dans ko pays. voilà mbokk téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo gis ngeen nag gars yi instant yi ñu ngi xaajaloo parce que dafa mel ni rek takk der yi dañ leen a bëgg a war ndomb fi mu nekk nii nag dañoo xaajaloo rek euh, trois partis kon bu nekk rek ñu am partisans xam ne taxawu nañ foofu noonu euh, pour rek euh, ñi nga xam leen bett ñoo ko gis nii ci ginnaaw. ay jeunes la amal affaire pas Sonko ay jeunes la amal affaire xoolal ñun d'accord nañ mu laal Sonko mi ngi si koom Sonko prix sax jaratu ko ñun ñooy demal suñu bopp ñi ngi sur le terrain yow xoolal naana sa café aisé billaahi nekk ni nag partisan Sonko yi ñoom parewuñ sax pour daw ñu ngi affronter ñi nga xam ne ñoo di takk der Moustapha xawma moo tiré ay coup de feu en l'air mais lii c'est une c'est une revendication politique doomu Mamour Saleh Moustapha Saleh xawma waaw ah, mais de la même manière gis nga gis nga gis nga gis nga de la même manière sunu sunu maam yi nga xam ne ay porteurs de pancarte la ñu woon de la même manière histoire bu la joxee rendez-vous dans ta vie politique da nga war a répondre présent man tey Sonko bi mu déploré 94 milliards yi ñu ne dañ koy tëj loolu dafa naroon nekk antécédent bu extraordinaire dafa naroon nekk jurisprudence à partir de ce à partir de ce fait képp ku jàpp sa sàcc boo ci amul preuve yow ci sa bopp dañ lay tëj bu boobaa fan la Sénégal di dem kenn dootul nekk ci en sécurité sa kër valeur yooyu principe yooyu yu fondamental yooyu moo tax tey gi nii ñun ñu génn am nañ ay obligation am nañ ay responsabilité mais histoire du Sénégal histoire politique du Sénégal tey moo ñu jox rendez-vous c'est pourquoi on répond présent mais ça c'est de l'anarchie nañu dem dans le terrain de la légalité dindi immunité cinq minutes après il va répondre mais nii nii nii nii dafa yomb il faut que ça cesse c'est ça Sénégal fu mu ko teg ñaari yoon ay assassin lañu yor yoruñu ay ay assassin lañu yor lañ ñi gëmuñu gëmuñu dara dara lañ Sonko mooy suñu espoir te espoir mooy sécurité bu gën a wóor ci àdduna bi sécurité bu gën a wóor ci àdduna mooy espoir espoir bii nag bu ñu ko bëggee yaxal ñun ñu jóg ci xeex ci dem ci dem ci benn ñeer Sonko ku ko laal ku ne laal nga laalaati kooku lu leer la kooku moom bu yeboo nañ ko xam musuma wax ci micro musuma taxaw génn manifestation musuma ko def mais Sonko mii espoir la bi nga xamante ne moom moo ñu dese seul mooy seul espoir bi nga xamante lañ dese fu mu nii maa ngi woo maa ngi woo ñëpp ñëpp ñu mun jàpp ci xeex bi ñu xam ni espoir bi espoir bi ñu dese pour Sénégal kes Sonko la nañ ci jàpp na ñëw ñu ñëw ñëpp ñu jàpp pour seen i ëllëgu doom waaw xeex bi ñuy xeex nii du pour suñu bopp mais suñu doom yi ak suñu sët yi parce que lii buñ ko bàyyee buy continuer di dem nii ci ñax bi la jëm waaw xeex bi daal ñu ngoog loolu la am pour wax wasalaam. nañ leen dem ci kër responsable APR yi bu ñu yóbboo Ousmane Sonko ñun ak ñoom ñoo fi bokk dëkk golo golo le nit ñu xamee ñun noonu lañ leen xamee comprendre nga bu ñu yóbboo Ousmane Sonko pour la voie de force man maa ngi jógee ba Touba je suis comprendre bu ñu yóbboo Ousmane Sonko fépp foo xamante ni ab responsable dëkk na fa APR nii kër commandé euh, Serigne Bassirou Gueye fépp foo xam ne responsable APR dëkk na fa nañ leen dem ñu attaqué ji foofu loolu mooy wax ji mais lii du solution Khalifa Sall nii la woon Karim Wade nii la woon comprendre bi nekkul fii kër Ousmane Sonko mais nañ leen wàcc ci kay ay almadi wala fu mu mënti doon seen kër fi ñu nekk ok jaa ngeen